ñu ngi fii ci kër Serigne Touba gi nekk ci Daaru Marnaan ci wetu garage bu njëkk bi ndaje mu am solo Touba ca kanam ci njiital Serigne Abibou Mbacké moom sëriñ Falilou mi nga xam ne mooy responsable moral bu Touba ca kanam ànd ak Serigne Abdou Lahat moom Serigne Abibou président Serigne Abdoul Fattah Guèye ak mboolem kilifay Touba ca kanam ngir lan Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér dafa jokkoo ak Serigne Abibou Mbacké xamal ndox mi kat. yitteem la te xaw na caa jaaxle tuuti mu bëggoon nag Touba ca kanam ànd ak maawu raxmati jàppale leen ci ndox mi looloo waral ndaje bi sëriñ Habib woowaa maawu raxmati woowaa reteet woowaa effort ñu daje ci kër sëriñ Touba gi ngir lan waxtaan ci yan anam la leen Touba kanam di jàppale ñoom ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi ba li sëriñ bi bëgg mu am ko moo tax sëriñ Habib bi loxo ñëpp nag xam na ndox mi ñëpp ci war a jàpp mbokk yi ndaje moomu nag lañ fas yéene ànd ak yéen gaaral leen liggéey bu am solo bi nga xam ne Touba ca kanam liggéey na ko ci ndox mi ndaka ñekk daf cee nekkoon xanaa kay sëriñ bi dafa bëgg ñu gën cee jàpp rek te it bi ñëw dafa fekk Touba kanam nosoon ab jataay ci mbooleem ñu sekk ndox mi ba lu am solo lu ñu fa tënk waaye dañuy fas yéene ànd ak maawu raxmati ak waa OFOR ak képp koo xam ne nii dara nga ci ndox mi ak bokki taalibe yi it nag ñoom it ndax kat ah ndox mi moom ñëpp ci war a jàpp nag rawatina nag ñi koy jëfandikoo kon ñu ànd ak yéen rek ci kër Serigne Touba gi ndaje mu am solo mi nga xam ne dafay amoon ci Touba ci kanam ak mboolem ñi xam ne ñoo sekk ndox mi. Touba ci kanam doon jumtukaayu Serigne Touba boo xam ne moom liggéeyal Serigne Touba rek ko tax a ci dëkk bi ci yëpp nag waaye wetu ndox mi it doon wet goo xam ne ku ko itteel la ku Touba ci kanam yàgg dox la. Cheikh Mamadou Mountakha it am yaakaar lool ci kuréelu Touba ci kanam ca wax ko ba tàyyi fisal ko. waaye rawatina ndox mi tam nga am ci yéene lool am ci yaakaar lool ci jàpp ne jafe-jafe yi ci nekk su ko Touba ci kanam àndee ñi ngi ko dénk liñ ci li ci bëgg dana ko ci am moo tax mu jox ndigal Touba ci kanam jataay bi li ko sabab mooy bëgg a nag ndigal loolu sëñ bi jox nan lañ koy ànde sof ko ci ànd yañ àndoon te teg ko ci yoon woo ne lañ ci bëgg nun ñëpp dañ ko ci mën a bokk am la ci sëñ bëgg mu am ko ci la ci lépp luy yàq ab ànd ñu xam ko te moytu ko ci lépp luy def ànd ñu xam ko te indi ko ci mooy tax ànd gi mën a mën a wér ndox mi jafe-jafe jafe-jafe bari na lool yàgg na lool diis na lool waaye luñ mënta jafe-jafe bu amul solution ci àddina luñ mënta lijjanti amut waaye lu mën a doon nag bales koo lijjanti ñoo ko bëgg a lijjanti dañ toog waxtaane ko yaakaar naa ñu ci baree bari xamante nañ yàgg nañoo gisante di waxtaan ci ndox mi di di ci jëm waaye jataayu tey bii nag dafa bokkut ak jataay yooya ndax jataay bi moom day ndigal loo xam ne dafa jóge sëñ bi ñëw ne ànd leen ko rawatina nag fii ak màggal gi te bëgg na bu àggee ci màggal gi mu feeñ ci ne boole gi mu boole euh, maaw ak boole gi ak Touba ci kanam feeñ na ci màggal gi. li ñuy waaj a tabaski forage yu bari pan na manque ndox bu méttee métti am ci la Touba kanam na xalaatee ne dëgg dëgg ginnaaw interpellation yi bari na mënee su cee selenglo kon faaw ñu jëm cee def yi pexe ci la ñu sàkkoo ci maaw rahmate ak ofoor ñu am ay daje daje yoo xam ne dañuy waxtaan xool ba xam nan la ci Touba kanam mën a dugalee loxoom yàlla dogal na nag ñoom it ci seen collaboration ak ànd bu rafet ñu wuy si Touba ca kanam ñu bokk toog waxtaan bi ñu waxtaanee ñoom ñu génnee yi nga xam ne xay na bu ci Touba ca kanam jàppoon fekk si ñoom it la def man naa tax euh, saafara am yooyee nag bokk na ca lu jëm ci grue camion grue bi nga xam ne moo yor wàllu maintenance ndax camion grue bi nekk wax nañ ne dafa yàgg dafa màggat te li muy pan dafa te léeg-léeg bu forage paane moom rek moo mën a taxaw dépanne ko génnee pompe changé élément de colonne ak yeneen yi nga xam ne moo aju ci wàllu technique bu ñaareel ba ñu ne bëgg buñ mënoon fexe ba am ay élément de colonne élément de colonne mooy tiwo yu weñ yooyu nga xam ne mooy dugg ci biir forage bi te xam ngeen ne Touba ndoxum xorom la weñ yooyu lu koy màggat xumaatal dafa yomb bo bu ba xumaat ba bënn day tax forage bi doole ji mu waroon am du am ndax bu pompé ndox mi bu demee ba yéeg lu ci bari day jaar ci bën bën yooyu tuuruwaat loolu tamit jafe-jafe la beneen bi ñettal bi ci topp mi ngi jëm ci wàllu matériel électrique ndax xam ngeen ne armoire yi ay appareil ñoo cay nekk te yooyu léeg-léeg am jafe te loolu day tax pompe bi di a lakk wala mu bañ normal ci toppaat mooy câble yi war a dugg ci biir beneen bi ci mujj na mooy lu jëm ci wàllu pompe pompe forage ay jafe-jafe la ci biir loolu tàmbali nañ di wut ay fournisseur xool fournisseurs yi ñu fi amoon wutiwaat ay fournisseurs yu bees dem fi ndakaaru contact bitim réew di dajale ba fi mu ne nii normalement tey jii wala suba la waroon a def synthèse mbooleem loolu nga xam ne war nañ koo jënd ci ay bagage laaj ko ci ay fournisseur bañ jox ñu ay prix ba nga xam ne kale nañ ko ngir bu ko defee bu ñu waxtaanee ba tënk nag léegi ci bu ñu jëndee ba noppi wan doxalin la ñuy am bu ko defee nag ñu doog commandé matériel bi mu léegi ña ngi ciy dox def nañ ci nangami réunion ba réunion bi ci mujj biñ toogee di ci waxtaan te mooy bërki démb ci la sëriñ Abibu wootee ne sëñ Muntaxa woo na ko jox ko ndigal jox ndigal Touba ca kanam ci ñu ànd ak Maou ma teg Ofor jàppale leen ci ndox mi ba jafe-jafe yi mën a wàññeeku kon daal xëy na bu ñuy tënk jéego yi nga xam ne Touba ca kanam jot na koo joxe ndox lii la xëy na nag jataayu tey bii mooy li ci suñ kanam nan la ñuy def ba ànd boobu ñu wéyal ko dëgëral ko ba ba ba nga xam ne liñ ci bëgg danañ ko ci mën a am ndax réeru yu sew yi nga xam ne moo aju ci wàllu ndox mi li ko sabab bokk na ci li ëpp ci li ko sabab mooy ñi ko seq ñaari li ñuy toog daa bariwut wala li ñuy waxtaan wala dañoo déggante wut bokk na ci li ëpp ci li ko sabab tamit mooy manque de communication bi nga xam ne am na ci diggante acteurs yi yor wàllu ndox mi ak population bi nga xam ne ñoo koy dund xay na bu fekkee ñi ngi waxtaan di waxtaan ak nit ñi ñuy xam fi situation bi toll ñu boole doole ko ci def résultat mën ñu sawar fee ñëw lool ndaxte euh, Touba ca kanam yàgg nañoo jàppale ci liggéey bi dañ ko wax na ko jël nañu ay pompe yoo am na ñetti at yoo xam ne amoon na ay jafe-jafe ci pompe yu métti en pour ñooñu ci jàppale woon au mooy extension yi nga xëy ñu ko def ci quartier yi dim na ko lu mat quarante nangam quartier ak yeneen ak yeneen ak volet bi wax fii muy lu am solo aussi mooy reparation fuites yi mooy ci réparation fuites yoo xam ne cité na cas yi nga xam ne léegi at mi yooyu ñoo ci gën a am jafe-jafe yooyu noonu lañu jàppee ci seen matériel ak seen personnel loolu aussi li liggéey mooy li ñu am ko si néew ñun suñ principal ressource li ñu am mooy branchement yi nga xam ne ku bëgg branchement da ngay joxe juróomi junni yoo xam ne dem versé ko ca banque ba bool ko si photocopie carte d'identité ñëw ñu defal branchement loolu la ñuy def ñun li ñuy jël ak jaayante yi nga xam ne ñu taalibe ñu ngi koy def kilifa yaa ngi koy def ci liggéey ak ay matériel bi ñu soxla moom yi lu mu soxla ñëw bind ko ñu yebal ko ci fournisseur mais loolu lépp ñun ñu ngi koy ñu ngi koy supporté au niveau de Mamourati na demaguñ fi ba ñu soxla matériel boo xam ne ñun li ñu li ñu waral mënuñu ko am nañu seer trop ndax joint jibo yi tamit yoo xam ne ay soixante mille francs la jar yi jar mais yooyu ñu ngi koy ñu ngi yàlla ngi ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy bi ñu demee nag yi am fi mu ne difficulté yi mu ngi yi ëpp ci bi am fi mu ne baa ma gën a ñëw mooy problème groupe bi groupe bi nga xam ne mooy machine bi nga xam ne moom la ñu moom moo dem ba màggat ba ñu dañ ko dañ ko defaaye nga xam ne ñu di ko réparé réparé yoo xam ne mën naa ñëw ñu fay ci quatre cent mille ñëwaat ëllëg fay trois cent mille ëllëg ñu fay cin cent mille mu ñëwaatee sax mën naa bañ am ñaari fan taxaw loolu tax moo tax ñu fekkante bi forage xaw fee fekkante ba xaw a bari xëy na moo indi ñàkk ndox bu tar gi période tabaski bi xëy na mooy suñ principale difficulté même personnel bi sax amut fii unité bi fii dafa dem ba amatul dem nañ ba moom ñi dong des fa il faut mu am lu mat quatre ba cinq ba six personnes yoo xam ne ñoom ñoo koy war a jàppale ndaxte matériel bi dafa dëgër dafay kii mais bi ñu ko defee li muy bi euh, état bi diggoon nañu ne dañ ko renforcer dañ ko renforcer ci ci personnel dañ ko renforcer ci équipement loolu lépp noo ngi ñox-ñox yi di ko di ko defar léegi nag biir bi daal mooy principal problème bi ak yéen ci yokk moo tax nag ñu fekkante fi fan yi ba lii ñàkk ndox bi tax fan yi ba ñu créer OFOR ñu ne code OFOR lépp loo xamante ne nii euh, muy patrimoine hydraulique rural ci Sénégal jébbal nañ la ko bañ ko ko jébbalee looloo waral Touba dugg ci nga xamante ne ni unité de maintenance bi moom tamit aussi day duggaale ci li nga xamante ne mooy patrimoine OFOR muy ci wàllum forage yi waaye foofu it aussi am na sew-sew bu ci nekk peut-être du ci xuus bu baax waaye looloo waral euh, ci unité de maintenance boobu noonu ginnaaw ba fi amee ba mu fi amee njiit parce que foofu dafay jar leeral njiitu unité de maintenance bi Omar Dem la moom moo nekk unité de ba pare tamit nekkaale njiitu euh, euh, division hydraulique régional bu Diourbel man li ma fi indi moom mooy jouer rôle transition entre Maaw Rahmati wala boog autorité locale yi ne fii nii ak OFOR ba nga xamante ne bu amee jafe-jafe ci wàllum euh, li nga xamante ne mooy jumtukaay yooyu wala boog patrimoine bi ñu mën cee ay saafara nu mu gën a gaawee wala bokk bu fekkee dañoo war a defal forage ci ab bërëb ma motiver ko kat wax ne kat bërëb bi war nañ fi def forage parce que nangam ak nangam a tax bu fekkee dañ fa war def ay extension ñu def noonu bu fekkee dañ fa war a def réservoir noonu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay jumtukaay yu ñu war a def ci waaye léeg mu am ay rëq-rëq rëq-rëq yi mooy comme wax nañ ko léegi nii rëq-rëq yi bari na benn rek la ñuy mën a lim wala ñaar muy manque de moyen ou manque de logistique bi ñu wax léegi nii jumtukaay yi nga tax yu war a mën a dem liggéey ci parce que man tey jii fi nii ne bañ ma fi indi fii jumtukaay yooyu noonu am na yuñ ma ci jox yoo xamante ne mi ngi fi benn muy oto peut-être ak euh, ay bureau euh, locaux mooy espace bu ñu war a mën a liggéey en bien entendu tamit aussi fexe ba tamit collaborer ak équipe bi nga xam ne ñoom ñaar ñoom laa fi parce que waruñu xëccoo jafe-jafe ndoxum Touba yàgg naa ko wax. nekkul lenn képp koo xamante ne lenn rek loo xam dañu ciy duut baaraam rek na lii kese la ay problème yu daje la ba bokk na ci benn bu njëkk bi fi gën a tuuti lay commencé mooy façon ba ñuy branché wala façon ba ñuy liggéeyee extension yi beneen bi aussi mooy ci forage yi forage yi la jafe-jafe ya ëpp yuñ fay am bu njëkk bi comme ni ko sëñ bi musafaa Dieng waxee mooy juru bi juru boobu bu paanee wala boog bu amee jafe-jafe moo waral bu paan amee ci forage muy waral jël temps lu tax parce que balaa ngay dem di intervenir foog nga réparer sa guri ba léegi ba pare léegi nii rek mécanicien mi ngi may envoyé message guri ba dafa paanal boo xamante ne tey jii fi mu ne nii loolu moo ñu indi jafe-jafe bu baisse de débit amee ci forage balaa nga fay dem di def intervention bess de débit bi gën a yokk baisse de débit moom muy turu en général du loolu képp en général muy turu yi nga xamante ne nii am na ci élément de colonne ou bien en tout cas élément de colonne day am ay bën-bën parce que lu waral loolu noonu xorom bi moo koy lekk su ko lekkee day dem ba nga xamante ne lu mu pompe day jàllaat ci suuf ba tax na loolu la bu doon génnee téeméeri mètre cube ci waxtu dana ko wàññee daanaka sax du mat sax juróom fukki mètre cube ci waxtu loolu mooy tax ba yenn gox goxaat yi pour ndox ma yegg fa problème la beneen li nga xamante ne tamit aussi wax nañ ko sànq muy manque de moyen bi loolu c'est global beneen ba ca tegu muy équipement dëgg jour yi équipement dëgg jour yi dama ko globaliser mooy élément de colonne mooy pompe mooy câble mooy lépp loo xamante ni day jëm ci biir forage ci gàttal doo nañ ko soxla wala boog en tout cas tey jii fi mu ne nii donte danañ ko soxla état bi aussi mi ngi ciy def ay jéego jaarale ko ci OFOR chaque année dina am benn budget spécial bu ñu alloué Touba boo xamante ne ci loolu la jëm mu jaar ci loxo yu leer yoo xam ne sax jaarale ko ñun dañuy ñëw ñun ne kat moo ñu nii bu ñëwee fépp ñu koy def fu ne dañ koy leeral ne fii ak fii ak fii lañ ko def ah, ndoxum Touba dëgg la naam am na jafe-jafe waaye bu ñu waxtaanee ba ay solution teg ko wax dëgg yàlla yaakaar naa jafe yu baree bare war naa mën a wàññeeku wala wa wa ilaa boog war nañ mën a am ay pexe yoo xam ne fii ci biir jafe-jafe yooyu noonu dana daj wala book dana wàññeeku. gis luy yàqu nga wax ko dara nekku ci tawfeex la ci ku bëgg a defar loolu lañu ñu sëñ sant. na ngeen leen reeteet na ngeen leen jéebaani ñi yàq ndox mi fu ngeen fu ngeen dem na ngeen sama tur loolu suñ bee ñu ko sant bañ ko dalee ba ba léegi ci ñaari at wala ñetti at mat na ko Touba kanam moo yor mooy financement yi ñii ñoo yor technique bi ak wàllu maintenance bi ak distribution bi ñun ñii ñooy taxaw barab sàngam amut ndox barab sàngam amut ndox nangam yàqu na nangam dem leen defari ko ndax ñun ñii amuñ sañ-sañu beddi maa wa raxmati ndax ndigalul sëñ bi la offort 38 forage ku ko def ci dëkk bëgg nga dëkk ba am ndox léegi ndoxum Tuubaa jafe-jafe yi ci nekk no wan yi dañ ne dañ koy tëj ñun ñoo ko wax te dañ ko gis duñ teg suñu bët la bër ki dem boo njaay matugul fukki fan ak juróom Mourtala gay mi ànd nag sëñ Moussa Diagne mii tijji wan boo xam ne ma ngi ca Madiane na ba mu ko tijjee Madiane ya ci nekkoon ñëpp dañoo am ndox waaye ñu xam ne ndoxum Tuubaa mii demut ci réseau bi la ko dem ci réseau bi nag ay wan yu yu tëju ci la bokk ay wan yu grippe ci la bokk xuma kal ndox mi ba dootu dem ay maanaa mm, fo sotti dooyu ñàkk duy ndox ba mën koo puus ci la bokk loolu li may xamadi xamadi ndox xam naa ne pompe buy rouler vingt quatre heures sur vingt quatre booloog di di di di xëcc di sanni sànni te yàgg loolu ñu xam ko il faut ñu xam ne fo actuellement mais wax ak yow nii recensé woon nañ fan yii ci ginnaaw juróom-ñaar fukki quartier yoo xam ne ay nit a fa dëkk woote ne Touba manqué nañ ndox am na luñ ci def ñoom ñii xam nañ ne mi ngi wàññeeku ndax ñun nekkuñ fi rek di xaste ak di ngàññi ak di wax lépp lu ñu xam lu baax dañ koy wax lépp lu luñ gis mu ñu defar ko ñoom ñii buñ collaboré ak ñun buñ defaree dara ñu taxaw ne leen defar nañ ko waaye bu fenn paanee daañ leen fenn paane dem leen defar ko loolu mooy suñu objectif ndax sëñ doon ko sant ofoor mii il faut mu seetaat ab liggéey menn mbamba sax mënut ne ci dëkk bi di ko seere il faut mu équipe ba ñu bëgg mu jóge fi de wala leneen xeexuñ ko xasuñ ko waaye na am équipe bu mu àndal Touba capital la capital boo xam ne mooy nekk deuxième ville du Sénégal ci yoon ay commune ay ay commune d'arrondissement lañ ko waroon a ken kenn nit mënu koo seere rawatina màggal bu ñëwee ñun ñii may wax ak yow kenn ku ci nekk boo taxawoon sa buntu kër fii màggal nga un mètre mënoo dox ndax am nit ñu boole kon nag bu ñu nee Bamba Sarr mi moo fi nekk fort di ko gérer mel na moom mënut a nekk Pablo bay nekk Maodo Rahmati mënut a gérer Maodo Rahmati mel na moom. faw équipe yi fi ne ñu dooleel leen jox leen ay mooy ñu ànd ak ñoom ci terrain bi liggéey. ñun suñu bopp mooy metti ñuy faj ay tànk forage yi Touba il faut ku ñu wax lan mooy problème mu forage yi Touba forage ndox miy génn si forage yi ak la nekkoon moo nekkatul benn il faut que ñu wax ndax ba bi ñuy gas forage yi wax naa leen ni Touba kenn waratu fee gas boo calculé forage yi yi ñu fi gas forage bi ci gën a néew ndax forage yi Touba SONES rek la ñu tollool ay forage forage yu mag la ay diamètre bu 16 pouces la ak 13 3 8 crépine 8 pouces la wala 6 pouces mais forage yu Touba réhabilitation forage yu Touba moo tax forage yu Touba amatul ndox ndax xorom bi fi nekk crépine yi nekk ci biir ay 30 mètres la 20 mètres la lii bënn tiwo yi nekk ci pompe bu mu muy baisse de débit est-ce que nekkul fa ndox may taaju continuer état liggéeyul Touba pour Touba mën a am situation ndoxu Touba régléegul bu fekkee si condition yi lañ ko lañ ko teg Touba nit waratu fi gas forage man def naa fi au moins quatre forages yooyu maa ko gasal suma bopp ndoxu Touba li fi nekk booba ñun suñu calcul dañu calculoon ni Touba cinq millions de personnes yeewul Touba te man gëm naa ni dix forage yu normal ñu teg si yoon man naa yor Touba sàkkantuma ak Touba yor trente huit forages ñuy wax problème mu ndox mënuma d'accord si loolu il faut que ñu xool li ñuy wax lu mu doon ak fan lañu ko teg état rek solution Touba état réglé gu ko te état du ko réglé ñun waa Touba ñoo koy réglé damay wax ni Kaolack Touba ëpp ko juróomi yoon wu la juróom-benn juróom-benn forage nekk Touba te Kaolack day am gàmmu musu leen a dégg ñu ni waa Kaolack nga mars ndax am nañu kenn mus na ko dégg juróom-benn forage fa nekk juróom-ñaar lañ fa gas benn bi dañ koo tëj ñu ni Touba am na 38 forage te ñoo bokk même nappe bi ñuy produire ñoom ñaar maastrichtienne bi ñuy gas Touba li fi nekk ci ndox bu fekkee tegu na ci yoon ndax bi muy def loolu di def test ndax looy wax lu nekk da siy teg sa muy luy dëgg. bi ñuy xool ndax Touba am na ndox bu neex si jamono Cheikh Amadou Lamine Bara tindoo di la ñu dem ma def fa benn forage muy diamètre bu ndaw dix pouces trois quarts am fa soixante dix mètres cube heure laaj ma njaay jonga laaj ñu ndax lii est-ce que mën nañ ko gën man leen nañu dem vingt huit kilomètres ñu dem daaru salaam daaru forage ba ma fa def mën naa faa génne quatre cent mètres cube par heure rapport forage baa ngi nii ak man léegi forage yi bu ko gasee Touba dafa bëri xorom ak filior ay crépine Johnson moo ci nekk ci biir ñu def gravier si gannaaw bu ñu demee ba yegg deux cent mètres deux cent cinquante pression ndoxu maastrichtien bi moom moo yéeg ñëw yéeg ci chambre de pompage bi ndax lay bënn tiwo pompe bi pomp bi day xëcc rek mais fa ndox ma taaju si biir lii génn di bënn lii nekk ci biti fa mu taaju pendant vingt ans quarante ans est ce que warul mën a bënn léegi crépine bu fekkee vingt mètres la wala trente mètres mën naa suulu dix mètres la mu doon produire deux cent mètres cubes ay cinquante la lay jox ñu yaakaar ni si pompe bi la fekk ci forage la il faut que ñu réhabiliter forage yi Touba réhabilitation forage yi mooy hydraulique mënuñu ko def ndax amuñu moyen amuñu matériel bu ko def daaw bi ñu koy def waxoon naa mu door ne ko bu ñu def ndax benn forage su quatre-vingt-quinze millions man que nañu jël ñaari forage mu ne am que ñu réhabiliter au moins vingt forage ndoxum Touba duutuñu am problème mu ndoxu Touba Touba bu fekkoon lépp tegu na ci yoon ñu am vingt forage yi dox nit duutul jàmb tiwo yi toj la ñuy wax mais actuellement tiwo yi li ko forage yi di jox doyul ndax forage yi li muy joxe lañ sa waroon a def ndax SONES kii mu ngi wax sànq ni diggante Pout ak Jandeer am na quinze forage lu mat cinquante sept forage forage bu SONES def Sénégal xam naa forage yi ñu def Jandeer ci su sumay rapport la ñu jëlee def naa fa trois forage Saalé Ngom ma ko doon contrôler kon li may wax xam naa ko forage bi ëpp ndox ci département Louga maa ko gas biir Louga maa ko gasal SONES mais tey li ñu calculé noonu si jamono yi sëñ Cheikh Aliou nekkoon dañ doon calculer nañu def onze forage kër Serigne Touba bu nekk gas benn forage seexi ñu def leen bu ñu amee forage bu nekk trois cent mètres cubes par heure combien de mètres cubes lay doon par heure benn waxtu bu nekk loolu Touba mënuñu koo naan mais il faut que ñu xalaat ni forage yi ñuy gas bu màggal day jot ci comme ni ko sëñ bi waxee état daal di dajale ñu jël xaalis daal di ñëw gas loolu réglé wul problème mu Touba il faut que ñu xool ni forage yi Touba ndox bi muy génne moo doyul bu ñuy jëndi pompe ba déwén tamit at mu jot dañuy gën a am problème at mu jot dañuy gën a am problème. am na ku ma envoyé benn audio barke démb boo demee Gelor tool Serigne Saliou ba fa nekk espagnol ya fa nekk demoon nañ ba seen forage yoo xam ne kat yi dañ ko abandonné woon woon ni dañuy gas yeneen forage ba d'accord ak entreprise bi ñu ko def bi ma ñëwee ut caméra ndax forage yi il faut ñu def leen il faut que ñu jël caméra dugal ko ci biir xool ndax amul tiwoy daanu ci biir ndax crépini suuluwul wula dee bu ñu defee loolu ba pare am na nay brosse yoo xamante ni ndax oto boo yor doo ko vider doo changer filtre à huile doo changer filtre à gazole bu huile bi dee bu yàggee sa auto coulé loolu mooy problème mu licencié lu Touba forage yi ñoo génnewul ndox mi doy pour mu jox nit ñi il faut que ñu wax te loolu état pour mu def ko il faut nga calcule benn forage bu nekk boo ko bëggoon réhabilité lu mu dee dee di fay six millions mais jar na ko boo naree def quatre forage bu nekk cent et quelques millions wala nga def tant de millions nga def au moins quarante forages yoo xamante ni mën nga ko réhabilité foo amoon deux cent mètres cubes di nga sa am cent mais 38 forage ci biir Touba ñu ni Touba day manqué ndox nit ku xam forage laa wax de xel mënu koo nangu bu dee dëgg xel mënu koo nangu bu màggal jotee nag dinañu jël budget jël seeni oto jël lépp mais hydraulique si boppam mënul def réhabilitation forage xamuñu ko ndax amuñu moyen mën nañoo relever pompe changer pompe ñoom bu ñuy airlift si biir chambre de pompage bi rek la ñu yem mais réhabilitation da ngay dem fa ndox may génnee ndax forage bi bu defee nii mooy chambre de pompage bi mun na nekk PVC mais tib yi nekk ci biir ay tiwa Johnson la suuf du ko lekk mais gravier la ñu dugal comme ceeb lay nekk ci biir bu ndox mi di daw mooy tey suuf si ba suuf si du ñëw xomaa xomaa yi bënn tiwa bi mën naa nekk fii di suul li nekk fii bu ko suulee bu fekkee vingt mètres la woon nga mu suulu dix mètres li nga doon am à vingt mètres duutoo ko am loolu mooy déficitu problème mu ndoxu Touba loolu mooy problème te état wu Sénégal du ñu def loolu SONES mosu leen a dégg seen forage am problème mais forage seen bopp il faut que ñu réhab bu ñu gasati forage Touba bu ñu jëlee état naree jël xaalis di ko joxe pour ñu gas forage nañ leen wax nañ ko réhabilité te jii bu ñu xooloon quartier yi nga xam ne ñoo gën a néew ndox ci Touba ñu xool quartier bu ci nekk ñu réhabilité fa trois forages wóor na yàlla ni màggal ak Touba du ñu am problème mais problème mu Touba il faut que ñu xool ni lii ñu bëgg a def bu màggal jotee ñu jël xaalis jox ñii ñuy jënd pompe jënd du régler si bay bu ñu jënd mille pompes pompe forage bu nekk muy trente huit forage yëpp bu ñu jëndoon ay pompe def leen si tamit te forage nab bi la muy produire joxu ko tamit problème rek la ñuy amaat il faut que ñu xool peut-être màggal gi jàmpana peut-être li fi des matul deux mois bu ñu mënoon a fexe au moins ba am budget boo xamante ne bii dinañu mën a réhabiliter au moins dix forage man wóor na ma ni màggalu Tuubaa du ñu am problème yéen ñi tur Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha dañaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko woote bi ñoo daje bi ñoo ko woote woon tey jii ngir ñu daje ak yéen pour waxtaanee ndigal loo xam ne daa si suñ kaw sëñ bi damaa woo ne dafa am ak jaaxal lool ci liggéey bi ndax ndox mi da ko jaaxal lool daal ndoxum Tuubaa mu xam ne Tuubaa ci kanam jumtukaay sëñ Tuubaa la mu bëgg jàppale ko liggéey bi jàppale ci ndox mi pour ma sëñ Moussa Dieng dé mooy sëñ Muntaxa di ko laaj ndigal wala laaju moo dara moo wax ma li ma wax ne man ma nañ ma ko yoral ni ma jàppale nañ ma jàpp ci ndox bi jàpp ci Moussa Dieng naa ko mu ñëw ngeen waxtaan ci bu baax a baax loo ci xalaat ngox ko ci liggéey boobee loolu mooy saw moo bi mais boo ma ne sëñ Moussa na nga ñëw waaye sëñ Bamba Sarr na nga ñëw Abdou Fara mi moo yor seen numéro ma daay woo sëñ Moussa doy li mais ne ko na nga ñëw dafa rek li ma jublu mooy ñetti kuréel yi xam ñu seq liggéey bi maa uramati yow lañ jox liggéey bi yow mii dañu wax jàppale ndax gis nañ ne am na sooxe te Touba ci kanam ak li sëñ Touba la jumtukaay sëñ Touba ñu ci nekk li ñu am moomu ci dara bu sëñ Mountakha ne ñoom tey bi ñoom fi tey ñu ñëpp sëñ Touba ñu bàyyi bi ma la wooyee nga ñëw ma woo sëñ Bamba mu ñëw mooy tam ci laa woo si Moussa Diop li ko ñëw yéen arrêté yéen xam terrain bi xam jàngoro yi fi nekk ci dëkk bi ma bëgg ngeen arrêté fu jàngoro taxaw ngeen ngeen ngeen sama ci seen baaram ni ma bang jàngoro am na fii bu ñu xamee jàngoro yëpp fi fi fi mu nekk ci dëkk bi ñu jóg wut suñ ko saafara saafara si yow mii la ñuy Moussa yow mi a mi yow liggéey am na yow liggéey bi Touba nag moom li ñuy doxee lañ bëgg leer ñëpp boo ngeen gisee nit ñi am ci yéen kóolute jëkk seen àll yi jox ak leer képp la nit ñi képp koo xam ne yaa ngi jiit seen kanam dee leer la yéen si ñoom koo defuñu bala fi ak koo mën a doon loolu na leer leer ak bi leer bi ñu ko bàyyi teg bi ñu ko bàyyi ëllëg man nag fu lu ñappee leer man gën naa ci doomu aadama yi jël seen àll jox ñu ngir sëñ Tuubaa fi ñu ne ko laaj nañ lu ñu mën nañ ko def ñu xam lii mooy saw mooy mooy mooy mooy mooy Tuubaa ci kanam buñu demee bay am ci kuréel yi bari ci dëkk bi waaye bu sëñ Tuubaa suñu Muntaxaa demee ba xalaat ne Tuubaa ci kanam kat mën naa jàppale ci ma awramati ci ndox bi ngir ñu am ci solution du ci xaalis bi ñu yor du leen waaye pas-pas la xool ci ñun yaakaar ne bu ñu ko joxee bu ñu joxee pas-pas te pas-pas lu mën amut pas-pas boobu la suñu mën taxaa xool ci ñun moo tax mu woote na ñëw liggéey Sëriñ Tuubaa ànd ko suñu Musaa Jeng jàppale ci liggéey bi lii mooy sababu woote bi ofoor Sëriñ Bàmba maa ngi sant Cheikh Fall mais li wax léegi leer na nañ xel moom daa jibluut tax dañoo wax bu xol bu jóge wax bu jógee ci ci xol ci xolay tàbbi waaye bu jógee ci nopp bu jógee ci aw làmmiñ ci ci nopp la yem am loo xam ne ku dégg da ngay xam ne xel nangu na ko daal ak lu xel nangu ak lu xel nangu dafa am parce que dañuy wax ne nit ki bu jéem lu mënut ceetaan ma njëkk sonn kon ñun ñu dox lu leer nañ ñu bëgg a dox lii daa Sëñ Tuubaa jox nañu fa nañ fas yéene ànd ak ñoom ànd ak ñoom ci liggéey bi liggéey bi dañuy ànd ci lépp lu ñu def nit ñi dañ xam ñu dugg dañ ko xam daa leer nañ bu ñu nag jëm indi ci benn ay ay ñu tëral ay nangam nangam lu ñu def na dañ ko yëgal yéen ñu état bi état kenn mu ko jiitu ndax ñu ci état bi bokk moo ñu ko ñooñu ambaale waaye dem ba ca biir tim ñu naan te élection ngoon ñu dig dig yoo xamuñ ko wax naa fi gars yi naan am na dañuy wax bu leen ci yabati wax naa ko lu tax du ngeen ci yabati man leen wax nañ ko def tey Touba ci kanam lu wax na ko def bu leen andee nag fii daje boo xam ne bu ñu dajee lu ko wax ko def boo leen toppee dañuy jàpp ne war a jën te doomu aadama kaddu képp la kaddu mooy dugal doomu aadama ci lislaam mooy génn ci lislaam bu xasee wax na ko kaddoom moom bu moom kaddoom Touba ci kanam loolu mooy yëfam kon yéen daa fas yéene ngeen jóg liggéey Sëñ Touba woote Sëñ Touba man nag ay tappale mun xëy ci xëy ma ji ko ne xaw ma ji dama fee a yëg lu ma yëg dana leer dana jant di gindi fi rek mooy ci fi sëñ képp ma ci bàyyi yéen ñi moo ci bàyyi yéen tam parce que boo bëgg maanaam pastos bi la la la la soxla yu ci yéen na ngeen ko man koo bokk pastos laa waxoon lii nag amu ci Samba amu ma Demba kenn ku ne amu ci sa wàll nit kenn ko jàpp yow yaa a doxal Abi Mbàkke daal ci kanam yaay moom nit ñi moom ma leen yilifuma fi kenn te bëgguma yilif kenn soxla ma ko man attaar bi daal fa seen loolu maa am loolu lépp jàpp Sëriñ Tuubaa jëlee ko taalibe kon daal seen euh, effort Sëriñ Bàmba li ñu ñaan di ko ñaan si Moussa mi nga xam yow lañu teg liggéey bi ci loo soxla ubbil bunt ci Touba Kanam lépp loo ay moyens la te ñu ko am Touba Ca Kanam da guuti te lu wut Sëriñ Tuubaa dañu ci dimbale daa waxoon ne katabtu fi baax an yi laa amul yëdi yenn saara bii bi maa iwa tiini ah yëdi li muxlin karimin laa daraahim taati mu sulatin wuñu taal kenn loxo ndax lu wuti woon nañ ko am ndax jaamu yàlla ak liggéey fi am luñ liggéey dañ am suñ suñ suñ suñ suñ jaamu yàlla yàlla dimbali kon maa ngi woon ñëpp ñu jaamu yàlla góor-góor te liggéey bii nañ sax nañ sax si daan tukkee dégg nga fas yéene ànd yéen ci loolu yi daanañu um am yu daawuñ ko xam te nit ki bu ngeen fas yéene ànd ànd leer bu leen umpante dellu wax dëgg ndax wax dëgg bu yàq ànd ànd yàlla taxutoon waaw kon nag loolu laa amoon ci wax maa leen jégalu bu ngeen bu ngeen xëy ba tey yéen toog kenn ko jënd sa temps def ko ci ngi liggéey suñ tuwaa kon sant nañ ne gërëm leen leen ñu ngi leen ñaanal sëñ euh, Abdou Diagne waa produit bi yéen yéen liggéey baa ngi nii rek ndax mbirum ndox lañu wax te kenn kenn ku ne ci nañ taxawaayam ci Sëriñ Tuubaa waaye nag kenn ku ne jàpp na yow Sëriñ Tuubaa liggéey liggéey waaw lii nag wax digal la ma digal la ma sëriñ bi jox naa ñu jàppale ko ci fas nañ ci yéen jàppale kamtulaay kattan maana ko yéen ñi nga xam ne yéen ndax luñ ci liggéey suñu tur yi ñu tudd waaye liggéey bi yéen naa leen gërëm naa leen naa ñaan ngeen taxaw ci Sëriñ Tuubaa waaw kenn ko yaa xam sa bëgg yàlla na baa ngi noonu ci rek waaw buñ buñ ci dellu ginnaaw mukk nañ gis mu yàlla kon mu naan bu ñu jógee fii tey jii balaa màgg gi wala balaa bis yi des dañuy tax a gis na ma soppiku tolloo mën naa lekk baax jërëjëf. mbokk yi gis nga ginnaaw bi ñu tënkee ba pare gannaaw bi Touba ca kanam it dégloo mboolem ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nga xam ne ñoo yore ndox mi Serigne Abibou leeralaat ne Touba ca kanam yorul ndox mi waaye am na ndigalu jàppale leen. ni mu amee ndigalu jàppale mboolem kuy yëngu ci dëkk bu sell bi di Touba ak lépp lu dëkk bi yittewoo waaye mbokk yi xam ngeen ne fii ak màggal wul nag kon nag kenn ku nekk bàyyi xel ne mbooloo mi daje fii amul fenn ci àddina fu muy daje du màkk ndakaaru gee nga xam ne toll nañ ci ñeenti million gu doomu aadama am nañ KMS 1 am 2 am 3 taxul ndaxaaru ndox ma mat te lii daje fii Touba ëpp fuuf la yeewoo fa ndakaaru ñii ngi naan juróomi million ñii ngi naan juróom benn million kon nag xoddeeku balaa ngaa lakkale na kenn ku nekk xam ne waajal màggal bokk na ci nga faggu ay jumtuwaay yoo xam ne danga fay taataan ndox di ko denc ndax kat li wér te mooy diggante fii ak màggal képp ku la ne mën nañoo lijjante ba ndoxu màggal du manqué loolu xëy na wax lu neex nit ñi la ak wax lu dalal seen xel waaye na kenn ku ci nekk xam ne war naa gën a yaxanalaat ndox mi na kenn ku ci nekk xam ne dafa war a tabbal loxoom ci biir ndox bi ndax kat boo ubbee sa robine ndox may ball na sa xel dem ci fa mu depare ba bu muy yegsi ca ka yor forage ba ca yoon wi muy jaar ci courant bi ba ni muy yegsi ci sa kër kon nañ moytu yàq gi tey dugal sunu loxo ci biir ndox mi te xam na nag fii ak màggal kenn ku ci nekk na waaj root teg ay bagaanam ngir lan bu màggal jotee bu ndox manqué moom mu fàgg woon ko bu yàgg ndax kat xoddeeku